kenn ku ne am na xéewal gu la yàlla bàyyal koo xam ne ak lu jamono métti métti tàqoowoo ak moom ndax imma yaa ngi wér wala yaa ngi dund ci sécurité wala yaa ngi am lu astuut sooy jàpp wala yaa ngi des sa ngëm ci sa xol wala yaa ngi am cër yooyu jaamoo sa borom wala boo yeewoo mën a jóg dox wala bu la nit waxee nga mën koo tontu te yooyu yëpp ak yi ma tuddul bu ci ne xéewal la kon nit ku ne rek mi ngi ci xéewal xakim bi nag ne la boo nekkatee ci xéwal na nga ko sàmm teg téye ko fexe ko garde bu baax a baax a baax baax noo koy gardee nag mooy di ci delloo njukkal boroom bi la ko joxoon di ko bàyyi xel mu tegal la ci ne ndax kat mooy yàlla def ay moy dafay dindi ay xéewal jullit bu yàlla boole ci boppam bu ne limaale ko ci jaami boppam yi féetewoo su dee def ay bàkkaar ay xéewalam day wàññeeku mu koy gis ku doy waar a doy waar ba bokk ci xis bu seetaan kese rek moom mooy bàkkaar ba pare mel ni ay xéewalam day yokk waaye julli dëgg moom suy bàkkaar day yëg ne am na lu koy wàññiku ndax yàlla koy avertise bëgg mu delluwaat ci yoon wu jub wi kon yàlla nañu yàlla di doole dimbali boppam ba li nu am ci ay xéewal te mu bari balaatu àddu walaatu saa kenn mënu koo lim sunu boroom defal ñu ko ci wet gune defal ñu ko zaahiran wa baatinan yàlla na nu yàlla dimbalil boppam ban man ko sàmm man koo wattu ba dara du ci sikk loolu la ma bi ñëwoon tey bu ñu fàtte nag benn di julli ci yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ñooñam ak saxaabaam ñi ngi sant ñëpp di gërëm di jégglu wasalaamu aleykum wa